bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen baalu ak si weeru koor gi te ngeen baal ma di nuyu suñu xalifa général Thierno Bassirou Mountaga Daha di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér gi yaram di nuyu suñu sëriñ suñu wasila suñu yaakaar tey ëllëg Thierno Cheikh Bassi Tall di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér gi yaram yàlla bàyyi ko suñu kanam ba kanam kanam yàlla mun na te yàlla na ko def si barke Seydina Mohamed di wax Thierno ñoo ngi lay nuyu di la ziyaaraat lii ñu def nii dañ ko doon def chaque année ren ñu fekkeewaat ko loolu sant yàlla la di ko wax lii xeeb nañ ko li ñu ko waxoon daaw lañ koy waxaat bu ñu amoon lu ko ëpp dañ koy defaraat ndax jaral nañu ko Thierno moo ñu ko jiite moo ñu ko wan bu ñu nee Thierno nekk jàpp ne loolay la man damaa jàpp ne Thierno moo ngi fi ndax man instant yi suñu xol ak suñu xalaat yépp Thierno ñu fi doon toog fekk Thierno heure boobu boobu lañ fi toogaat kon Thierno suñu mbëggeel si yow ba tey moo ngi <laughs> ñu la bëggoon démb ñun ñoo fi nekkaat ba tey di la bëgg Thierno ñun boo ñu waxoon fekk ñu ba kirikoro dañ la fay fekk ndax yaa ñu ko jaral te yaa ñu ko wan ñun dañ lay ñaanal rek yàlla may la gudd fan ak wér gi yaram liñ fi doon fekk nag lañ fi fekkaat ba tey teraanga yi bëri na lekk yi bëri na naan yi bëri na ñu la defal nii xeeb nañ ko trop mais defal nga ñu lu ko ëpp dañ lay ñaanal rek yàlla may la gudd fan ak wér gi yaram yàlla bàyyi la suñu kanam ba si kanam kanam waaw xol bi fees na daal mënu ma wax lu sori mais yàlla yàlla lañ lay bàyyi rek yàlla am fa yàlla la yàlla